temps ci ginnaw euh rek ay ñetti nit ñoo xamné ne nit kessé xamoo lu toll ni law nañu seen ay ñet nit kessé genn fa ño xamné peut-être c'est des opposants ño xamné ne seen wax tamit kenn du len déglu kenn du len déglu parce que le khalife général des Niassènes Cheikh Ahmed Tidiane waxul parce que aussi hum, le porte-parole waxul et donc ñoñu bu waxé je pense que seen wax amul ben solo ah xool la waxé rek euh di wax président de la république na dalal xelam.

ku ku wax El Hadj Ibrahima Niass wax Diène ba Sarr muy suñu sëriñ di suñu xarit di xaritu ñëpp waaye def ne jumaa ji ah, dañ ko sang moom da président da ko solo yëre kese ah ma koy wax ne ko moom bu sangoon ba set solo yëre génn si mbedd bi dina doy waar de moom nag suñu xarit la suñu sëriñ la te sa sëriñ kenn du wax ak moom neen yi waaye nag dama ko rek mu dal te bañ a topp ñenn ñoo xam ne ay nit ñoo peut-être amuñu valeur diko duggal yi parce que mom doomu Alaaji Ibrahima Niass la bayam sang la bayam la ku mag la mom bu mu dugg ci yenn af detaay dañ ko ci duggal parce que xamna nit ki euh, du du xol nit du nit ku et donc bu ko ci ah président de la république dafa am dafa gens. dafa changer xar kanamu lew nañu seen bo démé ci pavage dem tribune c'est à cause du ministre Diène Farba Sarr nañu seen musuko

et donc yàgg na ko te ba jumaa ji pare dëdd na kon soxlam jumaa ji la président de la république defal ko ci bamou rafet et donc président de la république ma nga xone dalal xelam man Ousmane Noël maa la rassuré parce que man ma dëkk lewna di fi def teraanga toutes les femmes de Léona Niassène sont dernier ami ñak ñess mi nga xam c'est responsable des femmes di femme bu djub femme bu correct femme bu am djom femme bo xam elle est respectueuse bari charisme qui nek ci ginaaw ministre Diène Farba nekk ci ginnaaw Ousmane Noël di jàppale président de la république ma bàyyi ma bëgg na ngeen bàyyi ko xel fu ne lew nañu seen jóg ñëppay jóg bu ne lew nañu seen nañu toog ñëppay toog kii nag moom kàddoom kaddu mooy kaddu MJKDFS toutes les femmes et donc moom dina wax ci lew nañu seen wax ci lépp donc may wax leen da dalal xelam lew nañu seen kenn wanu ko ginnaaw kenn dëddoo ko ñett nit ñetti nit ñoo jóg di wax te bu la neexee ñu wax site yi kenn moomu leen journaliste yi kenn moomu leen bu la neexee ñu gàddu seen micro takra rajo wax waaye nak ken deglu wulen waaye parti khalif general Cheikh Ahmed Tidiane il est avec 100 pour Macky Sall le porte-parole il est avec 100 le président Macky Sall kii ni nga xam moy mohamed Ibrahima Niass lepp lu aladji Hadj Ibrahima Niass dem defal président Macky Sall Mouhamed Ibrahima Niass keroog si ziar def nako defal nako ko Chiru, chiru, suuru dem def defal nako parce que euh, nag ku ne xam nak ku ne xam na mohamed Mouhamed Ibrahima Niass moy aladji Ibrahima. ma lay ñaan nak bo falok jàmm ak na nga ñëwaat lew nañu seen man Ousmane Noël maa la ko ñan na nga ñëwaat lew nañu seen dugg ci xabru Alaaji Ibrahima ziyaare ko ah ah, ah na ko jërëjëfati sant waa lew na mais nag na sa xel dal ñeneen wax. je pense que xol bu tàng moo tax ñu doon wax waaye jàppaluñu la dara kenn jàppalu la dara président ci kaw ca kanam. waa lew nañu seen yëpp ñu ngi ci gannaaw président. te deneen ko voteel falaat ko au premier tour loolu rek mooy suñu itte te loolu leen di dox ci gannaaw Ousmane Noël Dieng leen nekk nek ci gannaaw monsieur le ministre Diène Farbassar le lu Ousmane Noël Diène liggéey biir Niassène rek dafa jall falaat président li Diène Farbassar monsieur le ministre liguey leew nañu seen rek ci papage yi ñu tuddu ko nak parce que ñoko fa def tam ñu ngi naan buñ politiquer jumaaji mais deug la suñ baye Aladji Ibrahima euh def na fa commencé nako bam sori président comme niko Ousmane waxé solo ko mbubu kon fokk ñu tuddu ko nak wax deug yàlla lool rek dafa jaraat Euh, li fa Diène ba def falaat président président tam liñ ko gën a jàppee mu bëgg suñu baay bëgg suñ kilifa nga xam ne moom leen am muy El Hadj Ibrahima Niass faloon ko euh, ne ko danga falu deuxième tour mu métti woon lool nag te waxam ji am te ba déclaration bi nag métti woon na trop euh, si jamono yooju fajari siyaare taawu El Hadj Ibrahima taxawaat ñaan bépp ku bokk si taalibe ñeseen bokk ku bokk si maam Khalifa. na nga woteel président Macky Sall kon feddali na waxi baayam ba ba pare ne ko ñun tam dina fas yéene neen fal la premier tour kon ñun ñëpp ñu ngi ci gannaaw président Macky Sall.